jum cosaan ayca mi ngi noonu ñu remercier sunu invité bi fi jóge léegi waaw moom nag dafa war a nuyoo euh, Ndiogo toogagul nag tey ma laajaat xalam gi rek. Hmm? sooy bu Diop maa ngi lay nuyu sa giri baax na. jërëjëf. Adja maa ngi lay tagg na la fi avant ngay ñëw. waaw gis nga ko de voilà voilà maa ngi noonu de maa ngi lay fay. Mm, di la ñaanal yàlla jàmm. di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen. namoon nañ la de booy dem den takkal morso audio. Mm, booy demati den takkal morso. waaw pourtant joxoon naa ko saa mu takk ko. moo ko takkal boppam bëti euh, saa ta am na lu mu takk maa ngi koy nuyu baax ak sëñ Sidi moom sëriñ Abdoulaye Mbacke ñuy sëriñ Sidi mu yàgg fi la te ànd ak wér di waaj insha allahu rabbi màggaluk sëriñ Abdul Ahad Mbàkke gi euh, ñaan yàlla mu fekk ci jàmm Omar bun Xataab Gueye ñu ngi koy bu baax te di ko ñaanal yàlla jàmm mm-hmm. di la wax ni la sa boroori boo génne nga wax ma foo ko jëndee ma jëndal ci tabaarkàlla waaw rafet na <laughs> Cheikh Bara maa ngi koy ziara bu baax mm-hmm. euh, di ko wax ni tabaarkàlla tabaarkàlla bi ma koy sori ci yére bi gis ko muy leer xet ndeke yow boo ñëwee lay gën tàkk <laughs> macha allah na yoo xam ne du laal ndox ku weddi sa bos na laal ndox. léegi na kenn gën a xooj solaat. yéen léegi da ngeen koy provoqué moom du tontu. macha allah bàyyi leen ko yéen eh, tamit man kenn de. lu tax ah, boobu nga gis ko ci. tey daanaka nag tey nag saa saa ko sportif la. tey maanaam tey combat. amul bu xoola bu daanoo da koy nangu. ah un seul lutteur dans l'arène moo am. dafa am. dafa ñaari jaaram yi mujj fii yëpp marron beige la def. te bi Macky di nekk ci réew mi nangu woon sa marron beige non couleur yi fi la ko Macky fekk. non non bi mais bi Macky nekk ci nguur nangu ko woon seetlu woon ay bële la tey daal un seul lutteur dans l'arène la. ci kanam yow bokkoo. léegi maroon bees daa am nekk ak liberté provisoire moom ñoo fi ne <laughs> ñëw <laughs> ci kanam tuuti incha allah ñu ñëw ci victime di net. Mhm. tey damaa dem ci internet bi gis. Mhm. Ahmed dara su ma neexee ma ni tey victime la ndax dañu jël benn revue de presse bu mu defoon depuis euh, Zik FM. Mhm. ñu jël ko dajale ay boroomi xaalis yu bari yu ci tudd ni ay sàcc lañu Bassirou Diomaye faaw mu jàpp leen xale yi nag ña ngi koy wëndeel ci internet bi te pourtant Ahmed ba muy revue de presse ab journal la tiimoon di revue de presse ayca man mi ma gis may mbalax mbalax yu neex loolu du. loolu kay ñëpp la ah, traité nañ ko fi bët ki wax nañ ci. waaw naa nag waaye loola ma mënuma ko nag. mënuma ko nag ayca ngeen joxaat ma xalam gi ñu dem pajum cosaan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 xam ni kat euh, alxamis jot na ñu déglu Cheikh Baara ngir mën a xam li xew ci penc mi lan lay firi Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyuwaat. aauzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jazaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu alaaji saa Ndiogou di nuyu ñu ñu bokkal palaato bi di jiital ci nuyo bi xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal yàlla yokk wéram te yokk kàttanam di nuyu suñu way jur wa ca kër ga muy soxna Bali Mbacke Mountakha di nuyu Cheikh Abdou Samad Mbacke mu Cheikh Sohibou di nuyu Serigne basiiru Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir di nuyu euh, Cheikh Abdoul Khadir Ndiaye te xalifa Serigne daaru Assane di nuyu Serigne Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar ak soxna May Mbacke bintu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu Serigne Modou Aïssa Mbacke mu Cheikh Sidil Mokhtar ak sëriñ Abdoul Samad Mbacke mu Cheikh Sidil Mokhtar ak Serigne Jiidi Serigne Abdoul Latif Serigne Abo ak sëriñ Ateex ak mboolem njabootu Cheikh Sidil Mokhtar képp maa ngi leen di nuyu di euh, nuyu mulaay Hassis Guèye bu baax ak euh, Malick Ndiaye yoonu yokkute bu nekk Italie maa ngi koy nuyu ak Sakho Saaxe Euh, ca Italie di nuyu euh, Abdoulaye sekk di satu Ngalanu juuf Pa ak Kolle Seck rakkam di nuyu tamit sëriñ Abdourahmane Mbacké monsieur Abdoul Aziz Bara waaw di nuyu ñëpp bismillah jërëjëf Cheikh Bara waa ji ndaw su kan su moo tax may kii moom la jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye def gis macha allah Cheikh Bara eh, amal nañ gouvernement bi ba pare. prise de ak am na. gouvernement bi ñoom ci seen jëmmi bopp def nañ passation de service. ginnaaw bi ñu ko defee ba pare noo gisee passation de service yi lengee yi nga xamante ne bi ñu ngi ko doon joxe ak tamit noo gisee ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy soog a fal ak gën yaakaar daal moom nga am ci ñoom noo gisee yëf yi dëkk dëgg dëkk dëkk dëgg daal macha ginnaaw bi ñu fi jógee ci korite gi. Mm-hmm. tey ñu ngi doog a daje tamit ñu ngi baalu àq ñëpp. waaw di ñaan yàlla ñu fekk ko déwén. Mm-hmm. Euh, léegi nag ginnaaw boobu def nañ fi gouvernement. Mm-hmm. boo xam ne euh, mën nañoo wax ne gouvernement la boo xam ne euh, li ma doon ñaan rek mooy mu nekk gouvernement boo xam ne dina méngoo. Mm-hmm. ak idées yi nga xam ne moom la Pastef doon incarné bañ dénk ko. te effectivement méngoo nañ ndax am na vingt cinq ministre ak cinq. secrétaire d'État hmm. euh, gis naa ñu ci bëri di wax naan trente ministres la waaye loolu dafa yem ak képp li Ousmane Sonko bindoon hmm. ci livre solution waxoon na ne bu jotee nguur cinq ministères de secrétaire d'État lay def ak hmm. vingt cinq ministres donc kon def na kon ni mu ko waxee woon ah. léegi mu desoon tamit jëmmi ministres yi ci seen bopp nekkaat ministres yu cohérent waat encore ak projet Pastef ministre yi cohérent na ak projet Pastef parce que amul kenn koo ciy jël koo xam ne di nga mën a remetre en cause jaar-jaaram wala euh, caractère am maanaam ak enquête de moralité li ñuy wax solaanité li nga xam ne li dafa nekk règle bu ñu war a am muy euh, hayba ak euh, li nga xam ne dafa war a nekk ci ministre en tant que ministre nga xam ne dangay ngay nekk d'abord d'abord yow kilifa yow ci sa bopp ñu naw la nga am xam-xam am jaar-jaar Euh, loolu tamit gis nañ ne lu Ousmane Sonko jiital la ci ñim tànn mu am tamit ay poste yoo xam ne joxe na ko poste yi tamit maanaam boo ko xoolee xam ne euh, lam ñu digoon ca la nekk muy njàngat muy muy liggéey waaw parce que boo jëlee ku mel ne Ousmane Diagne tey nga xam ne c'est la première fois loolu révolution la ci wàllu justice mm-hmm. parce que c'est la première fois ñu jël magistrat de métier maanaam dénkaat ko justice bi musta am dañ daan jël keneen mu ñëw dugg si di at nekk ministre bi maanaam soit que day bu gënee jege day nekk avocat wala mu nekk keneen koo xam ne maanaam ameewul métier mi ak sistis ñu jox ko ko. noonu la daan demee. Euh, dëgg la maam Madior Boye bi Ablaye Wade yi doog a toog premier gouvernement Wade mooy gouvernement Moustapha Niass maam Madior Boye moo nekkoon ministre de la justice te maam Madior Boye magistrat la. Hmm. mais du woon magistrat di métier woon ci baro bi. bu dee Ousmane Diagne nag maanaam ci baro bi la nekk. ba noppi maanaam di di di di di maanaam nekk tey ministre bi kon donc mën naa wax ne te xam nga kañ la génnoon ci euh, euh, concours ENAM 1989. waaw 1989. Euh, defe naa ne booba jomaay mii bu day doog a dugg ci école wala soriwu ci. Mhm. kon donc ku yàgg la ci bi mu nekkee ci liggéey bi ak tey. parce que kon bu mënee bu ñu ko jëlee xam na maanaam lañ naan euh, borom mbaam a xam mbaamam bi ci des mooy ni ko usmaan Ousmane ko tànne man am naa yaakaar bu wér ci ne. Mm-hmm. fekkewu ma ndaje ma yëguma ko waaye xam naa ni bañ demee ba ne nañ def Ousmane Diagne ministre. Mm-hmm. maanaam Diomaye ak Sonko moom dañuy dem wëri numéro pour man koo woo. dañuy wëri numéro waaw dañuy wuti numéro mm-hmm. pour man koo woo nga xam ne ay jëfam moo ko ci boole. waaw waaye du participer ci wàllu xeex. Euh, te itam boo xoolee jëf yi ko ci boole. Mm-hmm. dañ ne Ousmane Diagne Ablaye Wade da ko ne woon. Mm-hmm. fal ma da ko ne woon defal ma lii mu lànk mu dàqu ko. waaw ñëw ne ko defal ma lii. Mm-hmm. mu lànk mu dàqu ko. kon donc euh, ñaari yoon nga gàntal ko sa kilifa. ay président de la république nga gàntal leen ñaari. gant gàntal moo tax mag Ousmane Sonko ñëw jël la jox la affaire bi. waaw mooy cela veut dire kon xaarul ci suba. mu bëgg a jàpp Cheikh Baara wala mu bëgg a jàpp kenn. Mm-hmm. maanaam mu lay téléphone naan la bàyyi ko. waaw nga koy bàyyi wala mu ne la woo ma demal jàppali ma diw nga koy jàpp. dëgg la comme Macky Sall dafa sant kii mu bañ. Mm-hmm. Ablaye Wade sant ko mu bañ. Mm-hmm. kon man bu ma ko santee day bañ. kon kii moo war a nekk ministre de la justice. loolu rek moo tax mu nekk ko ci li ma jàpp. waaw boo jëlee euh, ku mel ne euh, général. Euh, Diop Birame Diop. bu njëkk an euh, euh, GM maanaam kii bi nu mu tuddati armée bi. waaw forces armées ke fa daan nekk. waaw maanaam musul jël. mi su ñoo jël ab ministre boo xamante ne général la ñu dénk ko force armée mooy ko am xam-xam ci armée ah non non hmm. da nga daan gis ku mel ni Augustin Tine hmm. moom dentiste la dentiste moo fa daan nekk lu ëpp wala ah. Omar Youm avocat wala ñoom Malick Sall ah. noonu daal yooyu ñoo fa daan nekk lu ëpp wala ay Bekaay Diop maanaam ba ci temps wàdd ah. ñi daan nekk ministre Sidiki Kaba même euh, ñi daan nekk affaire wu hmm. euh, Amadou Sall Amadou Sall ñoo ñoo ko daan nekk mais duñ jël ab général def ko hmm. tey nag am nañ GMK en tant que général am ministre boo xam ne général la damaa jub de maître Amadou Sall damaa jub de justice laa jaxase. que sax bu ñu jógee si demut foofu. ah, ah. waaw. Malick la fa nekkoon defe naa. waaw léegi tey jël nañ général boo xamante ne moom ci armée la nekkoon. Mhm. ñu jëlaat ko dénkaat ko ko. kon donc loolu tamit révolution la bu bees. Mhm. jël nañ général Jean-Baptiste Tintine. def ko tamit ministre de l'intérieur. loolu nag tàmmuñu di ko gis. su mhm. masaan am sax dafay fekk élection dafa xaw a jege. ñu def ko pour affaire naturaliser mais jël ko en tant que kuy liggéey. ci métier. ci ci ci maanaam ministre de l'intérieur samp ko en tant que koo xam ne dafa war a toog foofu kuy maanaam loolu. tamit révolution la. ak euh, yu bari moo ko doon topp. mën naa nekk yu bari yoo xamante ne maanaam ay révolution nga ciy fekk. Mm-hmm. yoo xamante ne lii la boo noppee tamit ci passation de service bi. passation de service waaw. lay wan ne tamit dañoo jëm ci révolution. Mm-hmm. waaw loolu lay wane. parce que. Mm-hmm. ku mel ne euh, kii nu mu tuddati borom bàyyi laxat bi rek euh, Aline Dione ministre Dione. waaw waaw maanaam mu soloo ñëw loolu tamit daanaka presque c'est la première fois. ñu gis ko muy nga sol ko loo xam ne boo ko soloon ca mbeddi sapon yi sax ku la séen moom day xam ne yow mi ab sénégalais mm-hmm. maanaam coow sénégalais dëgg la sol mm-hmm. doo ko ñëw taxaw loolu nag dafa delloowaat mbàtt mi ci ndaal waaw deuxièmement dañuy gis ne mbumbaay mi tamit dañ ko ciy dindi ba mu jeex tàkk loolu tamit mm-hmm. maanaam vraiment lu ci am solo la am na ci nag lépp lu ci war a am nag am na ci muy joxante cadeau yi discours yeeg lépp jàll na mais dañ ci dindi lépp luy xumbaay ak mbumbaay am na ci nag benn boo xam ne moom Euh, jàpp naa ne hmm, normalu dañ ko war a defaat sax. boobal la muy bu Mambay ñaa. Mambay ñaa waaw ah, lu tax koy defaat. que Mambay bi muy def. passation waaw Mambay moom da xam ne ni mu defee ni mu yore woon ministère bi baaxut. ah parce que di def passation de service. Ah. ak ku ñuy wax euh, ministre euh, Mountaga Diaw. da doon ah. defaral da doon defal passation de service. Mhm. mais Mambay bi muy def passation de service amul benn maanaam hôtelier. Mm. du Racine Sy du du njiitu SAPCO du ki yor ANTP xaw ma mooy bitu ajuwaat ci kii bi. waaw maanaam euh, Pape waaw amul kenn. nee na ASPT. ASPT. Mm-hmm. ak SAPCO. Mm-hmm. wala hôtel yi maanaam ñi njiitu hôtel yi. waaw wala sax direction yi nga xamante ne dafa aju ci biir ministère bi. Hmm. maanaam Mambay daal mook directeur cabinet ma taxaw. mook directeur cabinet waaw daasam sax taxawut foofu. Mhm. daas bi sax ñëwut direction yi nga xamante ne biir ministère bee ko ëmb mhm. euh, yëpp benn teewu fa mhm. mu taxaw moom donc loolu da xam ne kon te boo arriératee moom bi muy jël fonction wala ba Youssou Ndour di ñëw di génn maanaam ñoom Racine si dañ daan ñëw dañ daan jël sax kaddu mooy njiitu hôtel yi parce que booy def passation de service ministre de tourisme parce que li ci ëpp solo hôtel yi ngay liggéeyal su fekkee benn borom hôtel teewul yow ñan nga ñan lan nga jébbale kon donc moom dangay xam ne liggéey te liggéey bi tamit am na ci lu bëri loo xam ne mën naa koo firndeel ah. gis nga Mambay bi mu ah. remplacé kii dafa waroon a ay bureau mi ngi jam ñaajo ay bureau Mambay waaw jam ñaajo li may wax ni nag ñu bëri danañ ko ree waaye dëgg la ah. Mambay daan na jam ñaajo daa sori mënul di xëy jam ñaajo moom mënul xëy jam ñaajo waaw ñu jël daajam secretaire général bi ay ay ay ay ay euh, euh, directeur cabinet am maanaam bureau am daal bureau bi nga xam ne ministre bi la concerné. Mhm. ñu indi ko koñu Mame Mbaye Niang. ah bàyyi bàyyi direction ba jam ñaajo indi ministère bi maanaam bureau ministre bi koñu Mame Mbaye nga xam ne Mame kër Mame ak ministère bi cinq minutes la. Ah? koñam ci Almadi noonu wetu TFM foofu la ñu indi ah, ah, euh, kii bi. xam nga ñaata la ci état di Sénégal doon fay. ñaata 15 à million millions par mois. Mame Mbaye waaw. indi ministère bi ba. waaw te maa ngi waat ci sëñ Touba. Mhm. <coughs> ña fa nekk samay nawle lañ. Mhm. du ma wax lii ñu naan damay fen Mame Mbaye daana toog weer du xëy malgré que indi na ministère bi ba koñam ba koñam waaw te du xëy te Macky Sall buy defaat remaniement moom lay jëkka jox post post maanaam loolu dafa ñuy jàngal caractère état bi ju bi fi jóge kese mm-hmm. voilà mooy lépp ci ay ay xaritoo ay politique ay neexalaate ay complot doo fi nekkoon waaw donc nag kon Ousmane sonk ñoom am nañ sens nag Macky daa neex a wóotu waaw waaw Macky mm-hmm. daa neex a wut. Mm-hmm. parce que Diomaye boo xoolee ki mu jël directeur cabinet muy euh, Marito ñaan Marito ñaan dafa bëri lum nuroog sonk mm. ci intègre te ñoo bokk bisu sax bisu sax anniversaire quinze juillet. ah bon waaw te Jom 54 mm, la la Marito ñaan judd. mage na Diomaye 4 34 ans mat na ko bàyyi. Mm-hmm. waaw nit nag bu jëmee ci caaxaan ba noppi naan sama moromu bàyyi kaa ñu ànd. waaw loolu yombut a gis. waaw man Ousmane tamit directeur cabinet mi Ibrahima Guèye. Mm. man xaw ma ko. waaw mais bi ma déggee ñu ne Sonko tànn na directeur cabinet ma gis ko ci Facebook damaa woote ñi ma xam ña yaakaar ne xam nañ ko. waaw may leen lu ngeen xam ci directeur cabinet wu Sonko bi baa dana méng daa dana méngoog sonk rek. Mhm. ki ma ko laaj ñaar ñaar ba ñett laa ko laaj waaye dama koo laaj koo xam ne. Mhm. dama koy boole ci noonu sonk yi. parce que farut ak moom. waaw Macky faral dana ma. Ibrahima Gueye moo gën a jub sonk moo gën a bëgg diine Sonko. Mhm. daane ma moo gën a kon <laughs> <laughs> kon ma ne ko nag kon ma ne sama xel kon alhamdulilahi rabbil alamin <laughs> ah, waaw kon waa ki nee na xam na ko kon ah. donc loolu lay wan ne ñoom ñoom Ousmane ko li ñu digoon sénégalais yi mm-hmm. maanaam première pas yi njëkk a soqi waaw maanaam ci lañ jëm loolu dafay wane kon lu am solo te ñun ñoo waroon a wax jomaay ne ko waaw jub jubal jubbanti la ñuy xaar ci yow jomaay ñëw di wax ñu ñu wax ñu nañu jub mm-hmm. jubal mm-hmm. jubbanti la ñuy xaar la la ñuy xaar kon nag yaakaar naa ne Euh, li ñu naan lawbee ñaax a jàngali pël ah. waaw maa ngi ci dolli nag mhm. joob te bañ a coob joob te bañ a coob a waaw ndax Macky mhm. mi fi newoon moom daana joob waaye lu mu joob coob ko lu mu joob coob waaw danaan joob di coob danaan di coob léegi nag yéen dee leen joob te leen coob joob leen te bu leen coob <laughs> jeex na waaw ah, macha allah <laughs> waaw am na solo waaw mhm. jërëjëf allah Cheikh Bara euh, dañu ñëw ci Birame Souleye mi nga xam ne moom julli na ba mu sëlmalee rek song làmb ji Euh, na leen daal bu ma fi kenn tuddee làmb bu ma fi kenn def lii. loolu nekk loo xamante ni bii euh, lu doy waar noo jàngatee Birame Souleye parce que yow mi dafa mel ni yow mi sax doon nga wax naan euh, CNG moom ngay laaj yow. waaw loolu day CNG Birame Souleye na bu ma kenn tuddee làmb yow ngay bëgg laaj. CNG ma gënal premier ministre. ah bon danaa ci ñëw léegi nag Birame Souleye bi. dama koy tënk mu gàtt. parce que yaakaar naa coow li sax sedd na fii ne. Mm-hmm. mais Birame tamit dafa def lu cohérent re mooy li li waa Pastef doon xaar ci ñoom. waaw la ñëw dëggal ko. Mm. ne lii lañuy def. Mm-hmm. mu neex mu naqari parce que dëgg moom du neex. Mm. dafa taxaw julli ba noppi taxaw wax dëgg daan na ñun duñ def lii mu jeex. Mm. maanaam pour kenn ku ne xam sa wàll ci nar wi. waaw léegi nag bi mu ko waxee. dafa am ay kaas yu am. ñii kaas tamit ñoom dañoo delloowaat mbir mi ci politique rek. dañ ko parce que waaw parce ñoom ñëpp boo leen xoolee ay farandooy Amadou Ba la ñu woon. maanaam ñoom li li biram di wax mosuñu cee d'accord. kon bu ñu demee ba tey ñu naan ko d'accorduñ ci loolu biram xamoon na ko ni waaw xamoon na ni ñii d'accorduñ ci li ñu wax mm-hmm. waaye teewut loolu la sénégalais yi ko woteel d'accord waaw léegi deuxièmement mooy biram su euh, euh, Gris Bordeaux nga xam ne mën naa am mooy xaw a nekk intellectuel lu mbëri sax moom moo doon jéem a tontu mm-hmm. waaye dafa ñëw au mu mu tontu biram da koo jox dëgg ah bon waaw parce que daf ko ne mm-hmm. yow dénkuñu la làmb pétrole lañ la dénk ak gaz waroo wax ci làmp waaw léegi loo xam ne yow waroo sax wax ci kon kay boo nee bu leen ma tudde loo xam ne amoo sañ-sañu wax kay amoo sañ-sañu sol sa grand boobu naan tuddee ma ko nag <laughs> léegi kon biram kay Gris doo jeexal na wax bi <laughs> léegi daal mbir mi man ni ma koy gisee bi ma koy seetaan damaa am benn image bu ma gis rek mooy lu yomb la muy la mooy yool ak garabu yoo rek yoo la yoo ak garabu yoo ah waaw maanaam waa làmb ji tudde làmb day tardeel làmb ah, dañuy war a bëre loolu sax dinaa ci ñëw dañuy war a bëre nekk fanaan dañuy xaar parrain bi ba pare amul benn pertinance hmm. Gris Bordeaux bi muy tontu Birame Souleye da ko waroon ne ko biram nee nga duñ la tudde làmb d'accord hmm. waaye na nga xam ne hmm. euh, Cristiano Ronaldo ak Sadio Mané bu ñu demee euh, euh, nu mu tuddati Arabie Saoudite dafa fubal du béyee mais alalu pétrole ba fa nekk la léegi nanga ñuy compal zéro virgule sax pour un ci pétrole bi. di ko dugal ci sport bi. làmb di ci mos. su ko defee bu ñu la tuddee wut làmb ji tamit du tee. dina am leneen faneen foo ñu féete en tant que ministre. mais du xaste du yooxu maanaam loolu moo gënoon a pertinent. Mhm. ngay wax parce que loolu defe naa ne bu ko proposé woon mbiram mbiram dana ne ah. mbër yi wax nañoo ak man. Mhm. daal di jéem xool ba xam moom lan la mën a def ci côté boobu. Mhm. loolu moo nekkoon xulóowu borom xam-xam. waaw mais dafa mel ne ñoom dañ doon nax waa kër Wade. ba Wade daanu jànge wuñ ci. waa waa kër Macky Sall wuñ ci. waaw ñu ñëw di leen nax naan maa la tuddee làmb ji ñii kaalawu di sàcc xaalis nit ñi di jaagar jaagari mm-hmm. maanaam mi ngi mel ne fii dafa tooy suukar fii wow Pastef mooy fu wow fi maanaam làmb ji di mar di mar di mar ba fii wow ba ba suukar si jeex léegi boo su Pastef tooy suukar nag maanaam weñ wi bëgg a jóge ci suukar su fu wow fi bëgg a ñëw fi tooy waaw léegi nag sa jënd jëndub yoo toxam téye di ko xaar léegi weñ ñi dajaloon naan waa ji yow tegal yoo tox bi boo ko tegut maanaam <laughs> loolu dong la kan <laughs> làmb jaay yooyu jeex na maanaam mi ngi mel ne weñ wu ñëw rek bëgg a lekk sa suukar nga sa sa sa sa yoo tox mu naan la tegal yoo tox léegi tegal ma dóor la waaw loolu la mm. làmb moom maanaam affaire tudde moom da koy tardel te amul benn pertinence ñu naan diw lañ tudde làmb ji amul njëriñ lu dul politique buñ ko ci dindee amul beneen sens mhm. man nag CNG boo gisee moo koy wax waaw <laughs> man damaa bëggoon mbër yi damaa gis bi ñu defee état bu bees ñu ne révolution lañ nekk mhm. kenn ku ne yaa ngi njëkkante di indil dara état bi naan réformel ma fii gis nga sax justice bi sax ñu ngi naan nañ def ay réforme kenn ko ne ngi wuti réforme même karateka yi sax ñu ngi jéem a dajaloo ne nañ def ay réforme mbëri nag ñoom continuer naan bàyyi leen ñoo lañ daan def mooy tuddee man damaa gisoon ne jéem waxtaan ak seen CNG bii waaw nga xam ne moo leen teree am dara daanaka man man damaa wax ne mbër waaw mbër yi règlement yi ñu leen tëralal ñi ciy bëre moo tax mbër yi duñu am xaalis. dëgg la parce que man bu ma Sonko woowoon ne ma dama lay def premier ministre ak dama lay def président CNC. man CNC bi laay jël. CNG nga bu dee xaalis laa bëgg. waaw ah, lu tax. CNG parce que premier ministre dañ lay fay sa salaire boo sàccut. waaw da ngay dem da ngay dem mais CNG dañ la tëralal ay règlement yoo xam ne dañuy fay tafatine cent millions. Mhm. fay Balla Gaye cent millions maanaam bàyyi CNG bi ci dëgg bi CNG bi ngemb. Mhm. pour xëccoog xëccoog ñoom cent millions yi. ah bon nan la koy xëccoo. nu <laughs> mu koy xëccoog ñoom. Mhm. mooy làmb rek ngay gis maanaam mbër mi di ñëw. bii ñëw CNG bi ci bunt bi la koy xaar bu ñëwee ne cëpp ci oto bi mu xool na ko tardé nga de waaw dagg naa la. dagg naa ci cent millions yi mu ne waaw mbër mi ne waaw garawul daa dugg di fecc mu ne ko li nga fecc daa daa yàgg mm-hmm. dagg naa la <laughs> bu feccee ba noppi mu wàññi booy yi mu àndal ne ko eh, booy yi dañoo ëpp ñaar dagg naa ko boo duggee mu ne la ah sawaay ñetti ganaar lañ waxante wante andi nga ñeenti ganaar <laughs> kon dagg naa la léegi nga pare ci loolu maanaam ñëw nga summee ko di sangoo say saafara waaw nga ah, fecc nga maanaam fecc gi rek dagg na la ba nga ñëw ni sangoo say mu fekkaat la fa Hmm? wàññi butéeli xool naa la ah sa waay sa ñaari butéeli ëpp ëppal nga ñaari butéel de. dagg naa la dagg naa la. Uh-huh. nga sango ba noppi maanaam ñëw taxaw war a bëri nga summee ko ngemb mu ñëw xool ngemb li la ah ngemb li rafetul de <laughs> daa am luy feeñ nii tuuti dagg naa. waaw <laughs> nga pare ñëw dugg ci géew bi mu ne la heure bi nga dugg baaxut dagg naa la. nga pare mu ñëw làmb la na saa yi xaw a ñin. <laughs> <laughs> dagg la. dagg naa la. ñu ne léegi ay ca bëri mu ne ma xool weyi hmm? xool weyi ne la yooyu weyi daa gudd. <laughs> <laughs> dagg naa la. boo laalalee wàcc dara. ñu dagg la boo xëppee waaju mystique ñu dagg la ne la léegi bëree la waaye am na dóor ñu dagg la ne la boo avancé maam maam boo nanguwut song ma dagg la boo areeree ma so ma dagg la boo taxawee di xalaat ma dagg la xanaa wax dëgg maa nga xam ne maa ma ngaa bëre. wax nga dëgg de kenn taxaw di xalaat sax. léegi léegi ñoom mbër yi au lieu ñuy jàng bëre maam dañuy jàng dañuy jàng maanaam bëmax la keeto bëmax la ba nga génn géew bi rek nga daanu maanaam ñetti arrière daanu dagg naa la daan daanu nga maanaam seen see day ñu taxaw ma ñun naa yow képp mbër mi rek jël xaalisam dem yoonam léegi mbër yi au ñu xalaat ci loolu jéem a calculer ñaata la CNG bi dagg ci ñoom ci année bi. suñ ko bàyyee woon ak ñoom lan la leen mën a jural. ak yeneen ak yeneen te yii ma ay wax nii yëpp yàlla xam na ne man bu buñ ma ba maanaam xam naa ne CNG bi sax gars yi duñ ma ko jox boo may tuut waaye <laughs> bu maanaam man bu ñu ma joxoon CNG wala ñu ne ma suñ baara bindal ñu loo xam ne gis nga mbër dootu tardé. waaw problème mu supporter yi daa ëpp. mais jox leen ay ay ay jóokeen yoo xamante ne nii ku ko sulut doo ànd ak mi fecc. ku ku ko sulut boo bëggee fecc police te génnee la. ñii ñëw ci géew bi di lii nañ am lu ñuy sol wala ñu am bats bu ñuy takk dégg nga temps wu fecc bi yaa xam boo feccut c'est ak sa supporter la mais du ma la ci daggante soo paree làmb ji soo feccee ba noppi am nga une heure trente minutes pour say gàllaaj mhm. soo paree da ngay bëri mais duñ la bàyyeeg sa bopp ngay taxam tardé deux heures de temps ñu doog na la léegi dagg naa la deux heures temps nga xam ne yow ñi ngi lay gis nii nga xam ne après yu bëri dañ koy génne te xaalis du ko laal mm-hmm. ak yeneen yoo xam ne ay réforme la man lamb ji ci loolu laa leen di wax parce que lamb nekkul lu ñu négliger fii ci Sénégal waaw parce gis tey xalifa général de Mouride sax mën naa toog di wax ak taalibeem ne leen jëm lamb jay bàkku jóge fay bàkkoo ko gën xam nga mm-hmm. kon lay wax waaw waaye jaaral na ko ci l mm-hmm. nga gis ku mel ne Ousmane Sonko tey day dégg naan da gars yi dañoo nammi jël gis nga te président de la république Ablaye Wade bëri na fii Moustapha Gueye ne ko damay galgal sama opposition bi. waaw ah yooyu yëpp da koy dégg ay ay ay ay ay yow mii da ngay waxtaan ba mu yàgg nga naan euh, yóbbante galgal tëjut làmb. comprendre nga làmb ak nit ñi dégg nga. voilà léegi nag kon. Euh, làmb ak làmb ak sénégalais kenn mënu koo dindi. kenn ignoré wu leen kenn xeebu leen kenn yabu leen. Mhm. mais nag nañ may nit ñi tamit. bu ñu bëggee liggéeyal Sénégal wax nañu fii la ñuy yem ak làmb ji làmb ji tamit wax lu professionnel mais bañ a nekk ay ay saagakat ak di xasteeg di tëkkuwaate du loolu quoi. d'accord voilà lii ma def nii sax tey dama leen di wax rek wala leen di wan que ne nit ñun dañuy dund làmb comme ñoom. Hmm. parce que li may wax nii ci làmb ji ku ma intéressé wul woon. doo ko xam voilà te biram sulay tamit boo ko digloon jomaay mi boo ko woon ci làmb xam na xam na mais nag nekkul nag euh, takki rajo di nax nit ñi naan ñëwal ma tudde la làmb ji dóor dem ci bureau yi di rang te mbër rek ngay gis mu nekk star ci Pikine bëgg a nekk garda ci Pikine dégg nga <laughs> bëgg a nekkaat foofu benn politicien boo xam ne da ngay <laughs> maanaam nekk fecckat ca palais dégg nga <laughs> maanaam yooyu yëpp dañ koy bëgg boole te loolu honneur bi nga doon mooy roi des arènes bi maanaam Modou loo bi mu nekkee roi des arènes bi laa ma jël sol te soto Amadou Ba dafa trahir tey roi bi trône bi da ko trahir. Hmm. comprendre yooyu yëpp jërëjëf Cheikh Bara temps bi euh, mu daw. Euh, euh, Cheikh Bara Cheikh ca Touba mhm. Cheikh Bara il faut temps bi jeex na daanaka mhm. mais il faut ñu ñëw ca Touba mhm. Cheikh Bara Cheikh Bara Touba euh, ga booy partagé nañ la fu ne maanaam bu nga ñëwee daal di ne nii di nuyu gars yi ci porte bi dem ñu bloqué la après ñu gisaat la ngay buuxante di dem loolu booy gi partagé nañ ko fépp Cheikh Bara sa kiiwu tubaab bi nu mu demee noonu blocage bi ñu la bloqué foofu. waaw loolu de maa ngi sant sëñ Cheikh Thioro parce que daanaka leeral na lépp euh, loolu mu ci wax noonu la demee. Hmm. Euh, li ci des mooy maa ngi sant sëñ Cheikh Thioro encore ak euh, ñoom Biram ñoom Lamine Baaraloo ak mboolem Pastef Touba yëpp parce que accueillir bi normal na boo xam ne daanaka ñun sax ñoom la war a sant parce que ñoom ñoo moomoon ngan gi. Hmm. léegi loolu. ay image la yoo xam ne xam nga peu euh, TikTok moom daanaka ay affaire u la rek du dara ay kaf ree la. Hmm. parce que man bi may ñëw foofu du bloqué xam nga bloqué man man man kii lañ ma daan bloqué. Euh, nu mu tuddati kaso bi. Cap Manuel. Cap Manuel lañ ma daan bloqué. laay dem bëgg a gis jomaay du ma ko mën a fexe ba gis ko. waaw waaye fee kenn bloqué wu ma. Hmm. man ba maa ñëw ama bloqué mooy nga ànd ak ki nit ñi dugal ñi daan na la yow doo dugg mais man bi may ñëw foofu damaa fekk ñi dugg ba tëj bunt bi. man bi may bi may ñëw noonu booba laay wàcc sama oto rek jubal si foofu laa def parce que booba laay doog ak si sust man bi jomaay di nekk kër mun Muntaxaa daf maa hmm. ma fekk ci yoonu Ndakaaru wi ah. may ñëw hmm. bi ma ñëwee damaa ñëw fekk jomaay nekk si biir jumaa ji man bi ma ñëwee damaa wàcc sama oto hmm. bu doon dañ may boloké kay duñ ma bàyyee ma romb jomaay romb niñ niñ tërale woon mbir mi ma ñëw ba ba ci digg foofu foofu yaay pii rek a fay taxaw ma ñëw taxaw foofu daan ne ne waa ji léegi ana président mu ne ma mi ngi ci biir ma ne ko du bunt bii lay génne mu ne ma waaw après léegi ma daal di reculer parce que booy tubaay dañoo aaj ci sàcc téléphone dañoo bëggoon a woote ma <laughs> ma génnaat fi may taxaw di bëgg a woote far gis jomaay di ñëw ma gaaw duggaat ma gaaw ñëwaat ci mbooloo mi bi ñu tijjee ma dugg. Mhm. jomaay mi ngi ñëw ñëpp di génn. men man dong maa doon dugg loolu taxoon ma doon ma doon buuxante. Ah. parce que dama gis jomaay ak sëñ Bas ñu ànd te sëñ Bas booba mi ngi bëgg a def nii maanaam jëm jëm ci côté bi otoom gaare. waaw ah. jomaay war a jëm si ci otoom. te bëggoon na ma vraiment. Euh, sëñ Bas ak Jomaay bala ñoo tàqalikoo mhm. ma ma ma fekk leen fa. Mhm. am am lu ma wax daal. waaw loolu laa doon reyante nag. ma taxoon ma gaaw boo xante ni boo xante boo xante ba egg. bi ma yeggee jàpp ci loxo sëñ Bas jàpp ci loxo Jomaay. Mhm. ah wax la ma bëgg a wax. voilà vraiment loolu rek la léegi nag ku ma gis nag may buuxante doo xam lan la. Ah, kon gars yi dañoo mën a buuxante xamal wuñ bi nga yeggee. ah non waaw waaw yegg naa de wax dëgg yàlla ba nuyoog jamaay wax naa ko la ma ko bëggoon a wax ci kanamu sëñ Bas. parce dafa am lu nga xam ne mën naa ko wax jomaay kese mën na maa dem ci sëñ Bass kese wax ko waaye ñoom ñaar bu ñu taxawee loolu occasion la boo xam ne vraiment am na lu ma bëggoon a sànni ay kàddu daal. Mhm. waaw. loolu rek la. jërëjëf Cheikh Bara. léegi nag mu des euh, ngan nga. ngan nga Cheikh Bara temps kon nag nañ ko tënkee rek mooy. jomaay moom maanaam yar bi mu àndal. waaw tàmbalee ko ci baayam bis bi muy wate ji. Mhm. jaar ko ci mboolem ci fu mu jaar. ba pare sénégalais yi boo seetloo dëgg diggante bi fi jomaay faloo ak léegi ñoom xamuñu woon jomaay bi ñu koy wateel waaw mais effectivement même ñi ñëpp li ñuy wax mooy dafa mel ni kii lañ doon xaar nag hmm. te malgré tout nag maanaam tànnuñu ko ñun Sonko ko tànn maanaam jo ko doo nga xamoon jomaay bi mu koy tànn hmm. kon loolu li mu ñu war a wan hmm. mooy ki tànn jomaay ku mat la te moo tànn projet bii mu ñuy woon ak jomaay mii nga gis nga gis ko nga xam ne amut sikk nañ ci doon xaar sax lu ko raw a ngi ci. nañ xam ne projet Pastef ba. ni Sonko tànnee jomaay noonu la tànnee projet bi. kon nag projet bi dañ caa yéegagul. waaw waaye li nekk ci jomaay lu ko raw rek mooy nekkaat ci biir projet bi ndax buñ ca yeggee dañ naan ay waaye ndekk li àjjana ji la ñu ko doon woo. loolu nag nañ ko xame noonu. Mm-hmm. yar bi mu wan Touba nag loolu. Mm-hmm. wane ko Tiwaawoon. Mm-hmm. maanaam loolu mooy eh, li nga xam ne moo ko jig. ndax nit maanaam buñ wane ko ca Korite ga wane ko ca Aminata Mbengue Ndiaye nit buñ la yaree. waaw Euh, maanaam nii rek lay demee. te maanaam dafay baax. Hmm. nit ki tey jomaay mën na maa tooñ ma déparé fii dem jëm ba njëgañaaw boole ji koog baayam. ne ko waxal ak sa doom ji. waaw wat mën naa tooñ sénégalais baay bi woo ko wax ko dëgg. waaw dégg nga hmm. loolu lépp mooy jomaay dafa sénégalais dafa nekk kenn ci ñun daal. waaw dëgg la voilà. Hmm. dafa nekk kenn ci sunu biir. maanaam koo xam ne maanaam li ñuy wax fami Sénégal daal. muy président bu am yaay am baay nekk suñu moroom. dégg nga loolu dafa yombul maanaam famille sénégalais maanaam boo ko hmm. xoolee da nga ko ciy gis mas maa ngi maa ngi sax fàttaliku bis bu ma demee njagañaw yaaye jomaa yi li ma nuyoo léeg doom yi daanu kii rekki jomaay kii magi jomaay ma ma xool ba yàgg ma koy tooñ ma ne ko waa mère am na lu ma jaaxal de hmm. sa doom yi noo noo def ba jomaay dàq leen rek <laughs> mu dal sama xaw kaw déedéet bul faral sa mbokk <laughs> sama caat mee ko dàq. waaw Mansour dama déedéet xool xanaa gisoo Mansour moo gën a rafet ma ne ko mukk mer ki kii rafetut ki jamaay leen dàq ñu coowoo ci noonu. maa nga xam ne loolu. Hmm. loolu après président. waaw loolu famille la. waaw Diomaye yàlla dafa def profil bi mu yor. Hmm. maanaam dafa nekk d'origine sénégalais. dëgg la ci wet goo ko mën a xool ba noppi yarab bi wane loolu. Hmm. te itam nañ am lu ma leen wax foofu mooy. ñu bari dañ doon wax naan jomaay ay salafiste ak yooyu. jomaay mee ca Touba ku ko xool ni mu summee dàllam yi ak nuyoo ba. ak sukk geeg raam gi. ku mm-hmm. yaakaar ne day jànguk taalibe. Mm-hmm. kon xàmmee woo kuy jànguk kuy tarik taalibe. Mm-hmm. kee da koo tari jàngu. <laughs> waaw waaw xam nga mbooloo ma Matar Seck Mbor nee na mag boo ko fekkee muy def lu bon nga naan diw bàyyi diw day jàng lu bon xamoo lu ko da koy tari. jomaay nag jàngutuk taalibe da koy tari. dëgg la dégg nga. macha allah kon nag loolu la ñoo ngi sant yàlla. parce que ñun dañoo taxawoon devant sëriñ si. xamuñu yi ñu wax leen ci ñoom wax ju ñaaw ñuy dem ci saali yi sëñ Cheikh Thiorog ñëpp lu loolu loolu doon dund. Mhm. sëñ Fallou Diakhaté ak ñu bari. Mhm. di tayle suñu kàddu ak suñ crédibilité ne kii amul intérêt ci. yàq yoonu murit waaye lu koy dëgëral sax la ci indi ak ak feneen ak feneen. Mhm. bi yi di dem Touba vraiment wallaay dama ne ñogg ndax bëgguma woon njuum te sax am ca ñu ne ah. lii lañ ñu waxoon. Ah. moo tax ba mu demee def discours am bu bu yaru nekku fa naan sëñ bi dañ maa tooñoo nag dañ maa tëjoo nag gaa yi ma doon jaay dooleek maanaam ñi ma wateel ci dëkk bi maanaam dafa wax sëñ bi ci kàddu gu tënku goo xam ne lépp luy politique ak ay jaxaseek yëpp du ko cee dindi mm. fàtte ay problème am wax ak sëñ bi ci problème yi dëkk ba mm-hmm. loolu bi mu ko defee ba noppi man damaa yeeweew yàlla xam na ko macha allah waaw jërëjëf Cheikh Bara sëñ Tuubaa bu baax di ñaan euh, kilifa diine yëpp. yàgg fi te wér. waaw macha allah jërëjëf Cheikh Bara. Euh, Cheikh Bara euh, xanaa programme bi rek ngay joxe parce que temps bi jeex na. d'accord waaw programme bi ni ngi may xoolee xool. ajjuma suba ji dañuy dem Tëngéej la ñuy faje hmm. muy seere. ballottement biir buy jooy. Hmm. lekk muy tëwërees ak hmm. awra wuy dellu ak ñàkk kàttan ci sëy yooyu yëpp. dañ koy faj suba ci Tëngéej. sangat njare njare sangaayul sunguf yi muy ñetti sunguf yi ak ubbiku ak bayre ak seet ak lépp loo soxla ci wàllu yooyu mm-hmm. euh, samedi ak dimanche tamit ñi ngi tëngéej ci sëñ Mansour termini su 48 mooy sama kër altine ci la ñuy faj rab ci benn fan ngay woote ñu jox la rendez-vous nga ñëw ñu faj ko ci bis bi mu dañ talaata ak àllarba ak alxemes ñi ngi asalem de ginnaaw école ma jëy sàll lii ñuy faj ci ndakaaru yépp am nañ ko boutique ca mbuur ginnaaw osan ba aboo taal moo fa nekk boo wootee dinañ la jël am nañ ko Thiès kër gi jàkkaarloo ak kër Mbay Juuf Assane moo fa nekk am nañ ko Touba wetu kër sëñ Bass Abdul Xaadir ca Talib Guédé sama rakk ju góor ju ma bokkal ndey ak baay moo fa ne am nañ ko Casamance euh, foofu Seexuna Samba fa ne euh, damay wax nag euh, incha allahu d'ici lëndi dinaa dem Togo. Togo pour ak ngan gu gàtt rek gu ma fay amal. incha allah euh, xam naa ay du fa du ma fa yàgg sax ñaari ñetti fan ñeenti fan rek laa fay def dellu si waat euh, Lomé laay dem incha allah. Lomé waaw macha allah. waaw boo demee nga nuyuwaale ñu Jacques Gabriel Préra ca Togo. waaw Cheikh Bara Ndiaye la woon borom def gis ñuy fàttali numéro bi di 77 610 81 81. 77 di wax tamit ñu xaar ma diine ak jamono. waaw tey la léegi ci kanam incha allah. waaw 77 81 du ngeen ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis seen aajo daal di faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa leen ngay am nekk leen rek di jël minute yi ngeen moomul waaye yàlla baax na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax alaaji Sanjoogu Mbay nga ak Cheikh Bara Ndiaye aboo maa ngi lay nuyu ak ñoom mbay Mbaye Baye Ali également ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax ñu dem ànd ak partenaire dellusiwaat boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique